ñu amal ab photo de famille ngir daal di koy fàttaliku saa su nekk école d'art oratoire et de leadership ak coaching académie bu Tunisie ñu daal di xaatim ab convention ngir tàggat njiitu ëllëg yi. mën nañu sax gën a suqali Afrique mu développé bu ñu jaaree ci xeetu coaching yi ñuy def. tey gis nañ ne. Tunisie soxla na Sénégal ci wàllu woowu noonu Sénégal tamit soxla na Tunisie ci wàllu woowu noonu bu ñu boolee sunu doole ñunu ñaar den mën a avancer et projet yi ñu am deen ko mën a réaliser en un temps record. balaa ñuy àgg ci xaatim boobule convention nag coopération bu dox diggante Tunis ak Dakar ñu gis nii moo ngi ci yoon wi ba tey bi nga xamante nag Senghor ak baa ñoo xàlli woon yoon wi. am nañu yaakaar bu baax a baax si njaaru ndaje yi nii ndax dina tax rek ñu gën a jëmal euh, li nga xamante ni moom lañ si. nous espérons aussi. gannaaw bu ñu amee ndaje bi ba noppi li ni mel dina tax ñu gën a rataxal suñu diggante. comment. Sénégal bëgg a sukkandiku ci rataxaayu digganteem ak Tunisie ngir gën a fës ci àdduna wërngal képp itam daal di ci amay contrat yu am dayo ci suñu yéene mooy naka la ñuy def aussi ba Sénégal gën a jaay biir Tunisie diplomatie économique mooy que ne ñoom bu ñu fi ñëwee di am ay marché ñun aussi ñu tabax suñuy entreprise ba mën leen jàppale ba suba suñu mango wala suñu not de wala suñu yeneen produit jën ak yooyu mana dugg ci marché tunisien bi ñu am fa ay marché aussi mën a aussi euh, à partir de la Tunisie aussi adressé marché Maghreb bi et puis aussi ak les marchés européens parce que ñoom ils sont en face de l'Europe ab ndaje ak secteur privé bi euh, bokkoon na ci forum bi euh, Sénégal itam ak Tunisie euh, jàpp ni bu ñu jógee ci lii dinañ gën a rataxal seeni diggante ak régime bu yees bi ambassadeur Rachid Saydani am yaakaar ni diggante gi dina gën a wëy